yaasin buubu laay wax moo mag demba su ko yaasin buuboo taxaw xar tànk tubayam ne ko yaa ko rey waaye doo fi falo mooy Macky Sall ak ñoom Amadou Ba dañoo defoon ne bu ñu nee Sonko doo bokk rek ci élection yi rek ñoom ñooy falo askan wi ñoo takk seen ndigg def na yaasin buubu defoon ne ko boo ngeen ko éliminer tamit yéen du ngeen fi falo loolu moo indi fomm élection yi demba su ko tamit ku ne gis na mooy bi euh, ma kodd ak ñoom mooy mu jëntalu révolution boobu dama koy bañ a topp muy gudd hmm. mais li mën a nekk rek mooy bi ñuy affaire u dammeel ak ay jigéen ñi topp ñu woon ginnaaw élection mi ngi ñëw Sénégal la le 29 octobre ci la ab sénégalais yi njëkk a jël ab këyit dugal ko ci urne na day wate ñu topp ko di ko topp ba 1914 ci lañ def euh, révolution euh, dindi tubaab yi daan falu fal suñ mbokkum nit ku ñuul loolu góor ñee ko defoon mais bi ñu demee ba guerre mondiale jeex 1945 le premier juin le premier juillet 1945 euh, lu ko jiitu France bi ñu jógee guerre mondiale dañoo réformé waat seeni élection daan ni léegi jigéen day wote bi ko France defee Algérie jël ko Sénégal daf ne élection yi ma jëm du ma wote mukk ñun góor ñi bàyyi jigéen ñi parce que comme France jigéenam day wote Algérie jigéenam day wote kon jigéenu Sénégal tamit du toog di bañ wate wote que bu njëkk ba góor gu am vingt et un rek moo daan wote te da ngay dëkk Gorée wala Rufisque wala Dakar wala Ndar loolu rek ñoo daan wate ñu ne par force kon jigéen ñi danañ ci bokk kon bu ñu la waxee kañ la jigéen ñi dugg ci euh, élection Sénégal nee ko le premier juillet 1945 ci lañ wate booba ak léegi tamit fu góor watee jigéen dafay wate ñu dem ba Ablaye Wade indi parité sax muy euh, institution yu bari boo demee dañ naan benn góor benn jigéen te ku gis ñoom may mën a busa ak ñoom suñu tata Mimi Touré xam ne jigéen toppul gannaaw ci démocratie Sénégal kon initiative bi ngeen jël ànd nañ ko yéen li am solo foofu mooy ñun li ñuy laaj lenn la mooy président Macky Sall le 2 avril boo defee passation de service ak boo ko deful palais bi moom di ñu ko abal loolu mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu yitte moo tax ñu toog fii di wax sénégalais yi nag nañ moytu divertissement parce que soxla sëñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti moo daan wax soxla bu dee benn rek borom soxla si dana ci jot waaye soxla du njaaloo une deux nag daañ naan fii amnistie yi waaw ñi dee nangam nangam diw ak diw a ngay diil ku bëgg a diil diilal ku bëgg a amnistie amnistie loolu lépp suñu yoon nekku ci ñun daal benn bëgg-bëgg lañu am senegaal mooy le 2 avril Macky Sall na def na génn suñu suñu suñu pale keneen ki fi war a toog mu toog fi suñu réglé loolu ba noppi kuy amnistie buñ noppee danañ jagle sa problème lu waay defit bu boobaa sa Macky Sall daal mooy problème mu Sénégal su fi jógee problème di réglé na su fi nekkee problème Sénégal mi ngi continuer di fi nekk kon sénégalais yi laay woo bu leen kenn divertir ku leen wax diw ak diw lii laa nekkoon nañ réglé problème bu Macky Sall ba noppi rek waaw benn problème daal lañ am ñun sénégalais yi mooy Macky Sall amuñu beneen problème bu ñu kenn divertir bu ñu kenn woo ci lenn bañ lay déglu leneen li ci des nag mooy. Ah, yuusufa waxoon na doom ji yaa bunayya laa taxsaf ru'yaaka ilaa axwatika fa yakiidu laka kaydan sa gént gii bu ko nettali sa doo sa mbokk yi parce que boo leen ko nettalee danañ la ci jéemal ay per te inna saytaana lil insaana aduwwun mubiin noon bu bon bi dëgg mooy seytaana si nga xam ne nit la comme yow waaye ni may mën a jàpp mooy ñun bu ñu bëggee def suñu manifestation te gëm ni ñu ngi ci euh, campagne électorale constitution bi may ñu ñuy rassembler di def suñuy campagne nam ñu waree ana nu ñuy weddee waate suñ bopp dem naan dañuy jébbal préfet ay këyit naan ko may ñu ñu manifester fii bu fi kenn dem ci benn manifester Youssoufa baayam da ko ne woon sa gént gii boo ko waxee sa noon yi sa sa mbokk yi ñu fexeel la waaye suñu yëf yii ñu ñu waaj boo ko waxee préfet mu yàqu ndax préfet yi ay préféré dong lañ waaw parfait wuñ ay préféré lañ dañ leen faa teg di leen woo téléphone di leen wax defal lii defal lii topp ñu code pénal topp ñu code procédure pénale code bi Macky Sall yi doxee la ñuy doxee mooy di topp askan wi di jaay doole loolu mooy dëgg ñaanuñu préfet ñaanuñu sous préfet ñaanuñu préféré li ñuy def mooy liñ préféré lañuy def waaw léegi dañuy buñ bëggee daje fii dañuy daje di wax alkaati yi topp leen dangeen ngeen a prêter serment comme Macky Sall ba ngeen di prêter serment li ngeen doon prêter serment photo Macky sàll nekku ci photo Senghor nekku ci photo Abdou Diouf nekku ci intérêt wu sénégalais yi moo tege woon ngeen ci na moom ngeen di sàmm tey nag intérêt Sénégal nekkul ci ngeen topp Macky sàll mu naan day yokk mandat wala day wàññi mandat te man li ma jaaxal mooy yow député yi nga ne dañ leen yokkal mandat député yooyu ñoom dañoo yor mandat te mënuñu ko yokk yow ku yor mandat mënoo yokk mandat bi bëgg a yokk mandat mandat keneen conseil constitutionnel yor mandat Macky Sall mënut a wàññi mandat conseil mënu koo yokk moom président de la république sax. amul kenn ku yor mandat ci réew mi ku mu mën a yokkal mandat wala mu wàññi ko affaire mandat société bi ñoo ko moom population bi ñoo ko moom léegi nag lii am senegal police yi ak gendarmerie ñoo war a am seen responsabilité bopp suñ leen joxee ah, commandement boo xamante ne dafa wuute ak seen serment bi waatoon ñu lànk loolu rek laa leen di digal wala bu ñu demee bay ñëwit nañu xam ne ñu ngi jàkkaarlook ñoo xam ne ñoo nekk ci dëgg ndax ñun li ñuy def gis naa sëriñ na ma ko balati rek bu ne jeexaat jeex na waaye ku bëgg a xeex na nangam nangam na ñëpp toog kooku ku ne am na ci droit waaye damay wax nag da benn kilifa diine ci Sénégal jàkkaarloog ay taalibeem ne la bu ñuy jalgati sa réew bu ñuy sàcc sa réew bu ñuy jalgati constitution bi na ko waxee nii toog leen seeni kër bu leen jën amul lu gën a noobul ci kaw suuf sii taxaw di xeexal sa constitution amul lu gën a noble ci li dundi nit di def ci kaw suuf muy ñi ngay gis ñuy xëy di liggéey pour am lu luñ dundee la pour garder seen ngor ngor googu nag li ñu déggoo def ko ci wenn téere di ko dund loolu mooy ngor dëgg na benn sëriñ wax ay taalibeem wax ko ni mu demee ne su ñuy jalgati Sénégal bu ñuy soppi constitution bi bu ñuy sàcc alalu réew mi bu gor ñi jógee di ko xeex ci tali bi yéen dem leen toog benn sëriñ du ko wax xam nga nuñ koy waxee mooy waaw ñii dañuy yàq ñun yàquñu ñii dañuy yow fitna yeewuñu fitna ñii dañuy jihaat ñun jihaatuñu li ñuy def nañ ñu ko tuddee lim tudd ku ko tuddee lim tudd mënoo ko aaye kenn ñun li ñuy def mooy aar suñu réew taxawu suñu démocratie lii ñuy def bu ko suñu maam yi nekk lii ñuy woote nii naan waaw dem leen toog rek nangam nangam ngeen waxtaan ba juboo bu ko suñu maam yi woote woon topp ci gannaaw tubaab yi di yalam yalami tey jii ñun ñuy ngemb la ñuy def ay yére sax duñ ko am dañ suñ maam yi ba xeex jotee bàyyi laay daa xeex. sëñ Touba xeex alaaji Malick xeex Cheikh Omar Fouti xeex Cheikh Amala Dukure xeex amuñu maam ju xeexut tey jii boo demee Maba Jaxu coalition bi mu defaroon yëpp ay sëriñ doo nga ca nekkoon yor seen i aliwa teg seen i daa tamit xeex jotee dañoo jël seen i jaasi ak seen xeej taxaw jàkkaaroog tubaab bi am lu ñuy bañ ku dem ba tey nag ñu naan ñu lu ngeen leen teg na ngeen ko nangu na ngeen tëdd ci kër yi waaw yii laa lank leen man maa leen ko wax képp fu ñu woote pour xeexal Sénégal jóg leen fépp fu ñu wootee foo xam ne wóor na la ne lii ay tappale dong lañ bëgg a samp ci réew mi ñi taxaw ne duñ ko fi sampe jóg leen yéen askanu Sénégal sëriñ bu leen wax toog leen lank leen ku sa bàyyi wax toogal lankal ku sa ndey wax toogal lankal parce que bu ëllëgee bu histoire taxawee ba ñuy nettali duñ nangu ñu ne sabaaykat ba ñuy xeexal Sénégal daa lànkoon danaan moo ne sama bàyyi jiitu woon de moo tax Sénégal histoire naqaree bind ndax ba ñuy xeexal Sénégal démb tey jii bi Iba Ter Thiam ne day bind histoire Sénégal am na ci ñoo xam ne dañoo jékki-jékki ne sama maam kat laaj yu rëy ngeen ko ciy defal bu fekkee sama maam defu ko nag loolu ah, loolooy problème bi maanaam benn benn chapitre lañ bind coow di parce que kenn ko danaa yii ñu ci nettali sama maam daa tuuti dégg nga nañ ci defal sama maam lu gën a rëy fii kenn du fi falsifier histoire la suñ maam ya nekkee woon bañ koy nettali kenn ku ne di di kenn ku ne yàkkamti ngaa tant pour nettali la sa maam doon def démb lii ñuy woote tey nag ñun de buñ dee avec fierté na ko suñuy sët nettali taxaw wax ne sama maam fii la taxawoon keroog bañ ne dañuy yokk ko dañuy yokk mandat parce que mandaa bii li ko fi indi maanaam le 1960 ba 1960 ah, mandat 4 ans la woon mandat 4 ans rek la woon 67 le 1er janvier la mandaa euh, euh, euh, Senghor jeexoon moom doo nga nekkoon candidat mu dolli ci ñetti weer def élection yi le 26 février. 1968 1968 le 26 février boobu ba léegi élection musuñu ko àndale bu nekkul le 25 nekk le 26 le 24 mooy dernier dimanche au février 1968 nag fekk na sëñ Fallou Mbacke ci kaw suuf sii Lamine Gueye la fekkoon fii mu nekk président assemblée nationale kon xam nga ne loolu ñun ñi suñuy bàyyi sax ñoo ko fekke woon ñun kenn ci ñun ñi fekke wu su ko suñuy maam bàyyi ma nee garde ba dem bàyyi ko fi suñuy mag di ko garde ba dem ñu ñëw ñu war koo garde mu nar a seey ci suñuy loxo dañoo war a xeex ba tëdd waaye wuruñu ko nangu parce que nag looloo ko fi bàyyi de fii ku fi mas a toog Ablaye Wade sax doon na doon na ruumandaat doon na ruumandaat affaire foofu mu élection waaye dafay fekk jàmbaar ju mel ne Macky Sall borom fit wu mel ne Macky Sall ku am fulla ku mel ne Macky Sall nga xam ne li mu bëgg xam na ko waaw ba mu bëggee xam na ko am na ci fulla am na ci fit taxaw ne Ablaye eh, benn seconde doo ko fi yokkee soo ko fi yokkee ma déloosé la Macky Sall ko ko wax parce que am na ci fayda waaye ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum moom lay def nag day digal nit ñi lu baax waaye du ko def moom ba mu amee intérêt ci ne xam ne mandat kenn du ko yokk daa taxaw xeex ko menacé Ablaye Wade taxaw ak i maroo de feu maroo de feu fexe ba Ablaye Wade defu donc nag Macky Sall moomu doon menacé Ablaye wadd bu mu ñëpp ful la tey Macky Sall moomu doon men doon doon doon doon doon doon taxaw di bañ yokk mandat bu mu ñu ëpp fulla tey suñ ko bàyyee mu def ko rek day wane ne moom moo ñu ëpp fulla moo ñu ëpp moo ñu moo ñu gën a am fayda parce que lim bi mu waree xeex moom xeex na tey nag ñun ñoo war a xeex nañ xeex man loolu laay woote di wax nag lu ñu woote rek ak fu ñu ko wootee nu ñu ko wootee rek nañ dem wuy ji am na ci loo xam ne nag mbéjum kanam la boroom a koy fajal boppam bu ñu nee Sénégal jël na coupe amul benn sénégalais bu naan non message suñ ma noo man yëgaluñ ma ne Sénégal jël na coupe bi kenn ku ne yaa yëgal sa bopp ne Sénégal kat daa am ndam ci ndam li laa bokk jóg naa dégg nga kon nag su senegal naree am guuta nar a dugg ci mpax ñu nar a taxaw xaajoo réew mi toog not askan wi defet bu gën a rëy téeméeri junni coupe d'Afrique ku xam ku am benn xam-xam ci sa bopp suñ ne ko ne Sénégal jël téeméeri yoon coupe d'Afrique ak Macky Sall jàllale lii muy jàllale da nga naan na Sénégal ñàkk téeméeri Coupe d'Afrique te lii mu bëgg a yàq mu yàq mu nekk fi ndax bu fi liy ju bu fi liy jógee ab Coupe d'Afrique jëriñatuñu dara dégg nga mi ngi mel ne nga am am xar xar mi xiif nga jaay xar mi jëndum ngooñ looy doyee ngooñ mi looy doyee mi loolu lañ bëgg a def nag topp ci mbër yi di daw topp ci footballeur yi di daw te amuñu constitution amuñu réew nekkuñ ci dara loolu kay ñàkkum ñàkk maanaam xar mi xiif nga dem jaay ko jënde ko ngooñ la rek nañ taxawal taxaw suñu askan nañ taxaw suñu démocratie te nag démocratie bi ñii nelaw bàyyiwuñ ko fi de dañ koo taxaw ba mu yegg si fii su dee nag ay nit lañ wala ay gor lañ nañ taxaw suñu démocratie bu nu dee suñuy doom jël bu yàggee ñu yegg fi ñëpp yegg su dee nag ay tàppet lañ nañ tëdd ci gannaaw jigéen ñi te noppi mu jeex tàkk wasalaamaaleykum